Ah, il dit, il dit en réalité, à mon <laughs> avis, il est, il est dans un jeu. Parce qu'en réalité, xam nga le, le jeu moo tax ma wax la ko il est dans un jeu. Uh-huh. mais euh, malheureusement euh, dafa jàppee boppam Messi. Mm. alors qu'il se rend pas compte qu'il est euh, actuellement Puyol. xam nga tey jii nii euh, voilà c'est il se dit mais si alors qu'il est qu'il actuellement. c'est voilà donc euh, nga xam ni je dis pas que ni sénégalais am na ñoo xam ne topp nañu. mais Puyol moo gën mais je dis mais gis nga ba muy dem retraite gis nga bañ ko gis nga gis nga ba ko bañ ko bañ ko dóoree dirbul ba wala xotteekoo ba tey donc mënul ah, sax taxaw mais encore une fois euh, je sais pas dans quel jeu il est. mais en réalité sénégalais yi. perte nañu confiance ci moom si lu bari par rapport ak jëfin ak doxilin. moom nee na ñu massifier jaayaat kaat yi affaire yi. recensé non non je dis euh, jusqu'au moment où nous parlons xam nga comme Sénégal moom euh, lu nekk mën a fi xew. jusqu'au moment où nous parlons moi je considère que Idy électorat am jamono ji ça ne dépasse pas les limites de frontières de la place de France à Thiès. rek